partagé ko. ah kii bi muudum koor parce que après nga partagé ko. waaw waaw partagé lu bëri. waaw après mu jël ko. waaw waaw. après ma jël ko fa waaw. I la Ah. منان منان لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا منان يا منان لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله يا منان يا منان la Hello. Amen. Amen. Gaga. ai, ai.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 إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي المشاهدون والمشاهدات asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jullit ñi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaar ñu ngi te wér moo ku koy yéene barki may ñoo ngi nuyu njabootam gi ko wuutu fii gannaaw ba ñu nuyoo ay rakkam ak njabootu bay lay gépp leen ñaanal jàmm ak sutura yàlla defal leen di nuyu nag njabootam gi ko wuutu ci jotaay bu tedd bii toogal ko fi Cheikh Abdullah ñoo ngi lay ñaanal yàlla di la ziyaar yàlla yàggal sa taxawaay dooli la jàmm ak xéewal ak sutura di nuyu bu baax Seydina Limaamu di ko ziyaar moom it di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam dolli jàmmam dolli ko wér yàlla gën ko dëggaat li nuy jotaay bi fi toog yépp wax ni bu nu jëlee nuyoo bu tedd boobu jox ko suñu bàyyi ngir aada ak suñu mag yu baax yi ko tar yóbbaale la ñu yàlla yàlla yàggal taxawaayam yàlla dolli jàmmam yàlla dolli wéram barke Seydina Limaamu sangu jamono yomb na yàlla yàlla na ko yàlla ñi ngi nuyu njaboot ci diggante góor ñi jigéen ñi nag mag ñi ak ndaw ñi ni mu koy waxee rek saa su ñaan rek nag yàlla dooli seen jàmm te doolu seen suñu suñuy fan amiin hmm? wax naa ko ba na yàlla guddal suñuy fan yàlla na yàlla doon li nu sutura sutura baax na ci àdduna de hmm? bu ko yàlla defal defal na la lépp wax naa barki démb fii ni yonent nee na nañuy jàppatu bu ñuy ñaan suñuy soxla ndax ci ñu koy ñaanal jeexalul dara kon sukuraam soosu bu la ko sàngee noo tërëdi tërëdi malaan li mu yàlla ku mu fekk bu jël balaanu sutura sàn sàng la ko loo tërëdi tërëdi tërëdi tërëdi malaan li ba tax dégg ngeen kon yàlla na yàlla sutural yàlla na yàlla may xéewal waaye yàlla na yàlla may wér soo ko amee sa njaboot amu amuloo ko kon na yàlla na yàlla may wér ak wérle hmm? te it yàlla defal jàmm. li Tuubaa ne gisuma lu ko gën àdduna ak àllaaxira muy jàmm na àdduna daal gis naa ni gisuma gënuma gisuma lu fi gën jàmm àllaaxira gënu jëm it lu ko fa jëm lu ko fa gën kon yàlla nu yàlla defal jàmm yi àdduna defal nu jàmm yi ñaan yépp nag ci benn buur lañu koy dagaane muy càppaaculi ay day def daal ngay xamante ni yàllaa yaatu yàllaa yaatu moom la ñëpp di tàllal loxo kenn d'accord nañu xoolal li nekk ci àdduna ci ay doomu aadama bu doon kurus ci dëkk bi foo doo kurus doomi aadama ñoo yor kurus di ci woo turam bi te ku ne nga yemoog sa morom tur wa te ñépp ci moom la ñu jëm te dina dégg ñépp du tax lu kenn kookoo yàq yàlla yàq hmm? ñépp ko soxlaal te soxlaalul kenn ku man da def li mu def nee na lu jiitu ma leen di bind yéen doomu aadama dama defaru man yàlla ba jekk doog leen sos dama defaru wéet man kese di defaru di defar sama bopp wéet di defaru di defar sama bopp wéet di defaru di defar sama bopp wéet di defaru di defar di defar sama bopp di defaru di defar di defar bopp nee na ba ma dem ba xam ni mat naa sëkk sëkk sëkk sëkk ma leen doog sos waaye ba may sos dama sosaale daw ci seenum xel daw ci seenum xel bind sama asamaan si ba mu noppi man nag maa tegle juróom-ñaari asamaan سبع سماوات اتباعا للقران ما ترى في في ملك في في ما ترى في خلق الله من تفاوت فردي البصر هل ترى من فتور بنمكم كنترنا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسر وهو اسير ما ترى في خلق الله من تفاوت نين جروم نياري اسمان لا تكلي جروم نياري اسمان defar bi ba mu noppi defar ba ca des ba mu noppi defar ba ca des ba mu noppi defar ba ca desaat ba mu noppi defar ba ca desaat desaat desaat desaat ba muy juróom-ñaari asamaan ba mu bind ko ba pare doog ni gees bind suuf tàllal suuf nag wal arda farashnaaha fa nihmal maahidun nee na ma tàllal suuf rek def ko ba sax waaye doggi leen ci balaa bés pénc dinaa ko taxañ ba ku fi ñëwoon di yaakaar ne suuf bu suuf ko ko man ko man dama bind asamaan ba pare doo ko bind suuf dafa daw si sunum xel mu ni xelu doomu aadama dafa gaaw su ma bindoon asamaan ba pare doo ko bind suuf bu ma bindoon suuf ba pare doo nga sos asamaan bu ma pàkkoo ñu ne ma dalal ba ngay bind asamaan ci suuf nga taxawoon waaye bu ma bindee asamaan ba mu noppi bind juróom-ñaar ba lépp taxaw lépp maase asamaan si mu surtuq mësul mësul daanu mësul xar kenn mësu ko raccordé waat bu ma asamaan mu rafet teg lekk muy juróom-ñaar ma ni gees suuf war na leen jaaxal ba may bind asamaan ci lu ma toŋu woon. am de ma bindoon suuf asamaan ñu ne ah non ci suuf nga taxaw ma asamaan ba mu noppi def ko muy juróom-ñaar doogu bind suuf. yow doomu aadama ak sa xam-xam ak sa xel manoo taxaw fii seen première asamaan fu ma ko relevé deuxième asamaan fu ko troisième asamaan songo fu ko juróom-ñaar songe manoo loo ko gis booy dox sa marché escalier xam nga première beeg deuxième beeg trois bi nga xam ne bii laa tàmmali bële laa cay teg bee laa cay teg ba jorog ma yegg mu bind juróom-ñaar si asamaan benn nga seet te juróom-ñaari nga teg moom sa bët yam nga càpp yemuma ca pour war nañ sa morom jamonoy sedd rek yow doomu aadama boo teglee ñaari mbaaj ku ni sarax ci biir néeg bi gis mbaaj mu weex ba bugg la ma tawul ak ni ngay tuuti tuuti ku fa dugg rek daan koy gis man xoolal li ma bind ni mu yaatu ba ma teg tële ko kenn ma doore fu ma tax kookoo man maa tara fi farjil basara hal taraa min futuurin mais nag dafa bëggul bañul ku ko vérifié mu ni nag su marjaan basara dafa ne maa taraa yow doomu aadama séenoo fi xalqi rahmaan bi tafaawul asamaan nii ma tegtale bind ko gisoo ci benn bu yàq bu ñu war a réparé waat gisoo fu fëkk gisoo fu musoo dox ba ñu la dëkk sàngam asamaan sa wet sàngam dafa daal musuloo koo gis musoo gis fu xam musoo gis fu ñuy raccordé musoo gis dara noonu laa ko bind nag maa tara fi xalqi rahman min tafaawul dara yàquwul kenn mënumaa corrigé ci ni ma bindee ba ñu mën a ku ma contré nee na far jii xel basara delloo waatal sa gis-gis bopp bu dee li ma wax leeru nga xool hël dara min futóor ndax li nga gis fu yàq ñu ne ko gisu de mu ne su ma yel jaal basara kayete ni yan xalibu xaali xaasidan boobu asra doo mujj nag lu dul man si ñaari bët rek te xam ne yàlla kon dafa bind boppam ba jekk doo ko bind doomu aadama xul huwa laahu aha ahad ku man noonu allahu samad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 waaye boo ko ñaanalee du yëg ñaan bi dama ndax dégg nga xam déet santal alhamdulilahi rabbil alamin waaye bu la defalee xéewal ba nga kontaan ba ni da nga koy ñaanal yàq nga sa wax loo koy wax yàlla na fi yàgg moo fi jiit sa maamaati maam moo leen sa tool am déet asini waaw soxloo ko yàlla yàlla na fi yàgg nga ne yow toppal fa la wa huwa alxadimu maa lahu بدا وزور بقاء ما له نهاية ما بداية وزور بقاء وهو القديم ما له بداية وذو البقاء ما له نهاية lay lay lay moo fi yàgg te kenn xamul ba fii door kañ la woon am de wusul ba xaay maa la woon yaaye moo fi des te kenn xamul desam googu am de moo fi yàgg moo tax pour noppal sax sa xel pour noppal sa xel dañ la si xub nga jékki-jékki di xelam yàlla naan yàlla lan war a mel. boo moytuwul génn góor lu ko mag. Mm-hmm. xalaat ci sa xel. ma sol mbaxana wër suuf ma nga sol nangam sangam lu ne nga décrire ko ma nga toog ca fauteuil yëpp ak nangam sangam lu ne nga xalaat ko mais bu bi mu bañee sa xel sonn. ngay xalaat mbooloo dafay tafakkaru fi xalqillaahi wa la tafakkaru fi zaatihi fa tubliku dafa ni xalaat leen ci man yàlla na xalam ci li ma créé suuf dex géej montagne safara becteex xalaat leen nii ma bind xalaat doomu aadama ni ma ko sose xalaat leen ni ma bind jinne xalaat leen sama malakoot ni ma ko liggéey xalaat leen ni ma def ba karee samay malaat xalaat leen ni ma def ba karee karee karee karee waaye bu leen xalaat nan laa def ba am bu leen xalaat rek ko tuux li ko liggéey di am تفكروا لكن قرار في خلق الله كل يعلى كراي ولا تفكروا تقولين قرار في ذاته تك أمام نونين بدون الفتوح يقول لكن تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فمهلكوا لا اله الا الله متى يعلى كما انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون léeg-léeg la nee na nee na jekk naa démb te bindu ma leen ba ma leen bindee ba pare xam ni mënu leen ma jaar ay doog a sos doomu aadama mënu leen ma jariñ dara ànd leen di ma jaamu guddeeg bëccëg du yokk bàyyi leen ma jaamu guddeeg bëccëg yéen jinneeg nit ak jinne du wàññi sama nguur dara ah du wàññi ci nguuram dara aka baax non seulement dafa baax mais dafa doylu waaye leneen moo tax yàlla doylu loolu nag mu ne war na ko roy ci moom yàlla dafa doylu dafa doylu fanweeri nit ak juróom ñeent ñeent Omar bun Xataab dugg ci lislaam muy quarantième personne ñu bàyyi julli ñu nëbb di génn bi lislaam nekkee quarante personnes déglu ma li tax ma firi la yàlla dafa doy lu bi lislaam nekkee ñaari nit ba lislaam nekk juróom ba nekk fukk ba nekk fukk juróom ba nekk fanweer ba nekk fanweer ak juróom ñeent ba doon ñeent fukk ñaari rakk suba fa ko bàyyoon ba na génni ko bàyyi yokk ci doy lu góoma de commerçant bi jaay sax bu marchandise am baaxee ñëpp dikkal marchandise bi mu jaar mu yokk prix bi lu seen man ko doon jaayee cinq mille francs mais tey bu ñëw dee de teg naa ci juróomi téeméer sept mille cinq cent noonu la adduna yi waxee mais yàlla def ñu wuteeg ñoom yàlla bu muy jaay lii njëgam mii di l'islam gii fa mu tegoon juróom fa mu tegoon ñaari rakk suba ba lislaam nekkee fanweer juróom-ñeent bay ñeent fukk ba nekk ni fa la ko bàyyi yokku ko te lislaam yokku na am dé waaye wax waxu nga dëgg plan dëgg rek la hmm? waaw waaw waaw la mu waxoon ni ñaari rakk suba ba mu amee ñeent fukki nit ba lislaam doonee ay millions yi doomu aadama taxul mu ne eh, seen ndàkk suba yooyu noonu loolu yoon nañ ci yeneen ñaar farata bàyyi foo ko doylu nit day doylu nit bu doyloo rek noppalu doylu noppalu doyloo mbokk yokkul rakk yokkul bu tisbaar yokkul bu timis yokkul bu takkusaan yokkul bu gere fa mu ko bàyyi woon rek kooku man walaay ndeysaan am loolu wax balaa ngay xam ni koo dénk sa bopp ku dul sa borom daal lu mu ko dara ump ko dara isaat ko mm-hmm. te moom yàlla bu maatu waswisu bihi nafs ونحن أقرب إليه من حبل الوريد تلف بري دولي وهو القاهر فوق الإبان كمني نك كمني تيغي خمني تينا كوكو يالا كوكو يالا كوكو يالا أمون فوق دوم آدم دي دار دبلول دبلول أفرأيتم إن جعل لكم ليلة سرمتا إلى يوم القيامة من إله ياتيهم من إله غير داهياتهم بدياء أفلا تسمون فلن بوكسون جاي كاين فوزون ba ko nekk xool sa moom ba ku nekk xool sa moom vingt trois heures mooy ye mooy vingt cinq yàlla ni su ma toogee ba vingt trois heures mooy vingt cinq nit ki booy waxtaan ak moom da ngay waxtaan ak moom sa xelam tollu ndax mu mën la comprendre mais nit booy waxtaan indi ay dimension yoo xamante ni mënu la comprendre da nga koy sonal بنت موخون دي لين وقتها نك ند سلو سين نيفو نمو تولو موتاخ ماي وقتها نك يين فاصون بي ماي وقتها نك يين بيسكي ليكتي اي نيفو يو خامتا ني نيو خل بيكو سا لا با دي فرانس دغال دغال بنت موخون خون بو ساماي وقت نينا واخ لي نك نيت ني سين دايو خام خام فمو تولو خول لين سين مونتو لاني 23 moins vingt cinq yàlla ne bu yéen doomu aadama yëpp daje woon yéen ñëpp ngeen daje yéen doomu aadama nit ñi ak ni ñu toll ñu ma bind ci aadama ak awa ba tey boole naa te ne dee ca ma dekkal leen biir yu tuuru yu yàqu ya ma def leen ay doom def kan doomu aadama def kan jinni yi ngeen daje yéen ñëpp vingt trois heures ngeen seen jabar damal nga teg paan génnel ëmb póot mi nga fóot mu yàlla nee na ndax bu seen jabar fóotee naal naalu póot waxtu woowu ndax yéen doomu aadama ak jinne seen pexe man ngeen a wax ba rocciwaat jant mu ñëw ba warawal póot comprendre ngeen ma bëgg wax la ilaha illallah nee na woo leen di jot jinne ak seen xam-xam ak seen dayo nanu góorgóorlu lu ko 23 heures mooy le quart bii ba jot ñu wax ba jant muy woyol fóot nekk fi ko man nee na bàyyi naa ko bàyyi naa ko bàyyi ba bëccëg waxtu zawal une heure naaj bi tàng yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yàlla nee na yéen nit ak nit ñi leen ak seen bopp ak seen xam-xam ngeen wax a wax a wax wax indi guddi ba xam na xam na ngeen dañ wax dëgg ku ne ci yéen ma ndéem nee ci laa bindee guddeeg bëccëg nee na ma bind guddi bëccëg pour ngeen daw uti ji lu ngeen dunde waaye bind bind bëccëg ngeen daw uti lu ngeen dunde waaye guddi nag ngeen suturlu ci mais yàgg ngeen dégg mag ñi di wax ni guddi dafa am borom reer tëdd dina wàllu dina wàllu xaw ma reer ma ko mag ñi daan wax ñoo ñereer dox maa ko wax kooku mooy suñu borom moom looy xalaat lu dul gën góorlu ci li mu la sant nga def di jaamu yàlla ni mu ko digle te nekk ci diggante yaakaar ak ragal janaay rajaa wal xawf tirnahu wal malik bàyyi lay bu xeeb ni kuunu bay nal xaw fi wadu jaar nekk leen ci diggante yaakaar ak ragal am déet boo ko ñaanalee gudd fan soxloo moo koy joxe kon looy ñaanal yàlla boo ko ñaanalee yàlla yàlla nga bëri wërsëg lu mu koy doyee moo la yor yor say waajur boobu juddoo ko yàlla yoru doo mu ngi commencé yoromu doomu aadama bi mu nekk ci biir ndeyam li ngay xamante ni kenn du ci biir ndeyam ci doom ci biir ndeyam la ko yàlla di commencé di ragataayee di ko jox dundam ak sori nga ko la ilaha illallah yàlla nee na dara bàyyi ak yaay pare nañ ci doom ji yàgg na ba mu nekkee lumb ci seen biir tokkuntu man ni minute potin am saajid naftali fa jaalnaahu samii'an basiiraa nee na ba mu nekkee topp suñu man yu rek laa leen dégagé leen ma des fa ak gune gi nee na maa fa des ak moom def ko deret def suux def yàq hmm? def der def kawar def roo def yux nee na xale bi di màgg petit à petit ci biir ndeyam léeg-léeg bu lii tëddee ci biir ndeyam ba sonn position yàlla ne laajal ma ndeyam bàyyi ndax ñoo koy wëlbati seen loxoog seen xam-xam yeggu ko man yàlla maanaam saraax dugg foofu foo xamante ni day yëgu ma bàyyi yëgu ma ma wëlbati gune gi ndax position bi ñu tëddee woon metti na tegaat ko beneen position delluwaat doonaat yàlla te ñaar ñaata la koy defal te du déranger ndeyam du déranger bàyyam kookoo mag ay day ni la yàlla nee dafa am fu ma leen jaaroo rek pour doomu aadama judd sos waa waaye lépp mën a nee na ma yor la doomu léeg-léeg jigéen bu wér di day bañ mu bëggoon wala mu bëgg lu hmm. nekk lan nga nekk lu xale bi bëgg laa lay def force rek ko lu mu lu mu bañ laa lay force doon su ma koy rafetaay doomu aadama ndayam lu yëg benn yoon ci yàlla ko lu ci bind nee na ci benn circonstance ci benn moment rek la la nday bi njott ni yàlla fii la tolloogum ci doom ji mu ngi sos ba muy bind tànk yaay yëgul di bind bët yaay yëgul di bind nopp yaay yëgul di bind gémmiñ di ko xat yaay yëgul di bind ay ay bët ak i yéen di teg ah, ah, di bind gémmiñ ak ay ñaari tuñ yaay yëgul ñu ni nday benn yoon la mën a sentir ni dafa mel ni gone gi fii la tolloogu mooy bi bu gone gi commencé na ci biir ndeyam di sax kaw ñu ni booba la tax mu ko yëg sax mooy fi saatu sinaw si nekk bu xale bi jékki-jékki di am yenn position ak yenn yenn wëndeelu yu muy wëndeelu bu laalee lu mel ni xool bi xëtër bi dafay mel ni luy xaw a jox yaay envie mu wàcc bi ndax ni mu koy xoose ci lay dafa mel ni fii la toll ak um ci pind waaye lu dul loolu day yëgul dara du ci doom am de di ko rek rek di ko répétaayee rek di ko répétaayee dundam yor ko di ko bàyyi xel moo tax bu doomu aadama juddoo di jaamu keneen wala di topp keneen yàq na ko ndax yaa sa yàlla la woon te biir yaay kenn fekk ko ci ba bés la ñëw xam nga lu xew borom kër gi mooy jël soxnaam daal di koy ñimantal ndax booba mag dugg na ko ñu dañ koy yóbbu dafay matu ci ñu daal di yen yenn soxna si dugal si oto bi daw sa kuus boo tiim daal di teg sa sa tànk ci frein bi ba mu sedd na siggi ak moom chauffeur yi wax na moom ñëpp muy si fekkoon na nga doon daw cinquième da ngay kay retourné daal di wàcc quatrième rek wàcc wàcc rek bàyyi ko point mort daal di kay tax mu ne bii taxaw rek nga yëgaat ak deuxième am leen may saal loo pare ah yàlla ma na ni maa leen da doon na ngeen ma di jaamu laay laay alaaji ma digle góor ak jigéen nanu ngay wax ñu naan jigéen waru ko jigéen du sañ yaay baatam sa kaw kenn du ko wax loobu laay laay di la ñaawal ne moo leen sa kaw di leen dafa buur yàlla bon bon mu gën a si ñëw di ko diigal di baax mu ne dama ñu fekkoon li maamu laay di ko jaamu sëriñ si ñëw di ko jiina maa leen bindoon na ngeen ma di jaamu laay laay lalaa ji ma digle góor ak jigéen nanu koy wax ñu naan jigéen waru ko jigéen du sànjaay baatam sa kaw kenn du ko waxlu bu laay laay lu di la ñaawal te moo tax nu ko di gémmiñ ay li baat sani wax leen sa kaw di leen dëgga buur yàlla bon bon mu gën a sànjaay sëriñ si ñëw di ko diigat li baat sa yàlla ka jaamu sa yu si ñëw di ko diingat libaasa yaa ne gis ma di jaabu laay laay lalaa di ma digle góor jigéen nanu koy wax ñu naan jigéen waru koo wax jigéen du sànjaay baatam sa kaw du ko wax ku laay laay nu di la ñaawal demoo tax nu xoti gémmiñ ay li baas ba wax leen sa di leen sa kaw a li baasa yaa nekkoon li maamu laay di ko jaamu sëriñ si ñëw di ko diingat di ba yàlla ni maa fi sës maa fi sës léeg-léeg nga mere sage-femme bu la deful dara saaga ko xupp ko ndax da nga indi sa malade mu wóor que ne mi ngi ci mat mu taxaw يعني لو ميتخو ناو سادي اونك دي يوغو مو داو خولات كو ديم توغات بابا ناو سي خام ناني لي كو نيغي باري نيو دو سي ديس واي نا لو خامتاني ديف ديكر دي سي تيلي وون بوبام با اندي ساس فام جبارام تي ساس فام موم مي امبا دومام نون سي تيلي بوبام با تخ مو نانغو نيو بوكو فوف ساس فام نيو نا خام ناني لي مومي تيلي دا سي benn borom waxu gudde bi moo ci des mooy suñu borom. Hmm. xam nan ni mat jot na dafa war a matu waaye nag waxtu waa position ba muy jël pour jënd ci loxo yàlla la. dëgg la. xam nga. xale ba nekk dafa rek ci lu ko toll maa ngi bëgg a dee ndaw saa ngay yuuxu safamba daw xolaat mu ne toog rek yàlla ñu teg daal di jël ci des nag mënatu leen ci dara dara dara man maa ko yor ndax man maay communiquer ak moom mu dégg ma ku dul man man ta communiquer ak moom mu dégg ba mu coob ko kulu seen xalaat lépp lu yàlla du def da kuutal dikk ba mu soog ba mu soog mu sànni ka wax mu dégg ko mooy kaay kaay kaay prépare toi nag yaa ngi wàcc yaa ngi wàcc war a gane àdduna yaa ngi fu naqari nag boo xamante ni gis nga ni ma la yore woon a xéewal ci sa biir boo ëllëgee boo ñëwee mu yore waar la loolu bu ma la wàccee nag ma jàmm ni jàmm bu sell de mm-hmm. sinon yaa ngi jëm foo xamante ni lu fa waay man yaa ko mënal sa bopp de da ngay jëmburee ji de mm-hmm. mais boo nga jàng nga dimbulee dee maintenant balaa ngay wàcc puisque it lii ma la doon xéewale dama la koy dencal boo ma toppee ko ëllëgee yow ma xiyam téere yi nee na li tax àjjana neex mooy lekk bu la neex ngay lekk naan bu la neex ngay naan lal bu la neex ngay tëdd furi bu la neex lex bu la neex sangu fépp bu lal bu kër bu la neex surtout bu la neex dëkk lekk bu la soob nga lekk ka te doo joxe dépense di lekk te doo joxe dafa neex àjjana neex àjjana neex loo bëgg rek ñu jox la ko xuduufuhaa daaniya kulu wasrafuuhaa bi maa kuntum taxmaluun ila kazalika najzi al muslimin waaw yàlla nit ba am nu ma neexee doomu aadama bu ne xas lees naa laa jox safo bu toll ni àdduna ñu ne ko yàlla ak li nga bind ci doomu aadama loolu moom kon xanaa boobu boobu àjjana dina xat dina ragal mu ne yàmma weddi laajal laajal liir bi may wax léegi ba mu nekkee ci biir ndeyam daf ci doon fii fu ko neex dugg fu ko neex jaar booba liir ci biir ndeyam bu ko ni woon am na lu gën a yaatu biir yaayam muy àdduna am na ay kër ci tabax bu kaw xool ci biir ndeyam mu weddi ko waaye ba mu juddoo gis àdduna na mu mel tabax yaag mbedd yaag tali yaag yoon yi nga xamante ni man ñiiti réew ma dara lu ma neex dëgg nee na man ma naan kaa position waaye fa nga jëm loo fa yaa xamalal sa bopp ku jooy boo jooy sax ñu dóor la jooy jooy neexul adduna ay jooy moo ko sos coono ak sukuraat te tey ko si ceeb dara neex boo juddoo jooy boo màggee bëgg fas jom gàcc bëgg fas gàcc ba bëgg bëgg daaneel gàcc am jom coono di kër nga daw a a daw a daw a daw di daw guddik bëccëg yow añ bi li muy tàng tàng doo ci bi muy tàng tàng doo ci lekk balaa ngay ñëw ñëpp tëdd balaa ngay jot ba ba booy xëy ñëpp ngi nelaw nga daw a daw a daw ba sa doole jeex ngay dem retraite ñu jox la sa jaar ak palaat ak ak filial ni la ba demal wéeru xaar sukuraat day dëgg lu ci neex nee na ma jékki-jékki na ko laaj tëjee ni ko ah jëlal position doom bi da jékki-jékki rek bi tar ñi ñu ni muy ñëwee dafay traversé colonne vertébrale bi téere yi amalante nañ ko bu dee doom bu góor position bi muy jël bu dee doom bu jigéen position bi muy jël puisque góor dafa fiir bu dee jigéen day def face yaayam bu dee góor da koy wan gannaaw moo tax ba ci néew bi bu génnee àdduna bu dee jigéen am nañu imaam di toxee bu koy jullee bu dee góor am nañu imaam toxee bu koy jullee doom fiiraange boobu dem na ci biir ndeyam ba nga xamante ni yàlla doomu man am na position bu muy jël ndem góor la digganteem ak yaayam wala jigéen la digganteem ak yaayam position bi yàlla positionné la mais xam des juddu gi yàlla nee na maa ko yor maa ko naan ñëwal rek mu ngi tànn nee na sama juddoo sama coobare la juddoo mu daal di yegg si nag moom doomu aadama toog yàlla nee na tey nga xam tey yaay yaay xam ni du ma moroomam tey bàyyi xam ni du moroomam bu amoon kuy mën a comprendre lii ndeyam nay doon xale bi juddu bër ci démb nga tiim ko ñu bënn say ween yi da koy nàmpal te ween yi yàllaa dundal la dëkk di bënn ko نصحنا سي بنوك يا الله كو بن المو اندي والو اي بن بن بنوك نك اي بن بن يا خو بابا خالي بن ناني لا دي كخ ديد بن بن يو ندو يو كاي مو تولو كاي ندي مو تيغال نك في نك سا بوتش خالي بن نتي تك خيس دوك نكو اير ريغتاي ما ام جب نك وارنا ريغتايو خامو نو ميدس يا الله نك تاي لاي مو تي واخا ديو جي سفير ناي نيو نالا جيري بوزيشن بور دوبو نغا بوزيشن léegi juddu nga tey lay waxaat ak yow tey lay mujjee wax ak yow bis boo waxaatee yow bis péncër bu ma lay rek. waaw maa la ko. walaay si ci na taw seetan walaay laa dem jërëjëf. la bi rek laay mujjee ko jaw déglul li ma yoo xam nga lan la mu ne waaw mu ni que sa dund pour l'instant en ce moment li may wax ak yow sa dund mi ngi ci sa ndey lay départ gis nga loolu mun a tiimal muy weenam yooyu ci la sa dund nekk xam nga la laay def téenal seen ko mu teen jàkkaarloog weenu ndey ji mu ni que bu dëkk dikk ma lee rek dawal wuti ko boo ko mootoo mu ci kaw rek xëccal mu jëm ci suuf la ngay dund dina su jógee yegg si ci yow liir bi ni tiit weenu yaay ji cos bi xët mu mu bif mu mu muuc mu mi yàlla ni fa prénage moo tax nday bu mu am ko lee doom benn yoon yàllaa ko koso woon du ko fàtte bu ko tegaatee rek xale bi xam fa mu jaar kii bu ko def moroom xamoo li xew la ilaha سنقرئك فلا تنسى فاذا فاذا قرأناه فطبق قرانه ثم ان علينا بيانه يلا نينا ما كيروك لا جانغ دوم ادم نمي دوندي بور ريسان ام كي موخ لي كيروك لا تي باري نيكو دوس موخ ديو نك موخ تي ديو نك بس بين تي موي بني ريغني افير يوم ياتي لا تقلب نفس الى باذني بس بيت نيب ديك تي اديما ومنهم الصخير والصيد بس نيو boo xamante ni cër yëpp lay tëj gémmiñ yëpp lay tëj waxuloo cër yi daal nee na fii laa jël fii laa jaar ak yow ba ma posé la question démb ni la alastu birabbikum nga ni ma xaalu balla nga ñëw àdduna nag di jaamu kaneen ku dul xam nga ñëw àdduna di jël say mbir di ko dénk kaneen ku dul ma mm-hmm. te ka ngay dénk ay mbiram lott na ci mbiru boppam ngay lijjanti sa mbir bopp xam nga. Mm-hmm. donc bi sax. yaakaar mu jël say mbir yóbbu ko moom ay mbiru boppam rek lottu na ci. moom ci dara dara dara mais waxatuma laa sa bëri bëri ñu jënti ñaan yàlla am na weexal am na wax naa dee leen ñaan la du weexlu waaye kay ñaan la muy ñaan amu ko puisque yow mii ñaan ñu tudd la sëriñ boo fekkoon ni li ngay ñaan am nga ko doo bàyyi ba ñëpp tudd nga tàllal sa sa jaada am de daa di lal sa nguur su junni téye ci di bàkk yàlla rek di bàkk yàlla rek yàlla boo bëggee ci moom dara da nga koy bàkk yaa latiif yaa latiif yaa latiif jékki-jékki rek bàyyi boobu tuur nekk ci rek yaa baasitu yaa baasitu yaa baasitu jékki-jékki rek yaa gën nii yaa gën nga koy bàkk ci ay tur ba mu may la kon yow mii ñaan ka ngay ñaan lu la muy ñaan amu ko yàllaa ko moom mm-hmm. su ko neexee may ka tey bu ëllëgee mu xañ ka la mu ko am déet léeg gis ku ñaan lu weexal ñaan nga doxul mu jël ko yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ni sama xaalis laa ko doxal mu lekk ka nangam ak sàngam ak sàngam ñi dañu yëpp borom turu yàlla yi dañ leen yëpp yebaate la pharmacie bii bis jot nga jënd sa garab naan ko mu indi la effet secondaire te doo dem réclamé jiwaat ko nee leen wax nga dëgg dëgg la ah pharmacie yow garab gi sax bu euh, euh, euh, sëñ bi bu la garab gi digul woon sax ñu ñu ne baax na tanewu la mais da lay indi effet secondaire nga naan que la neen feeñaat ci sa yaram nga ni pàcc toog moom ci kër gi nga dem ñu def loolu échographie wala ñu def loolu scanner ngay fay ay cent quatre-vingt mille trois cent mille ñuy la sax gisuñu benn feebar ci yow nga ñëw tëdd yow nag sëriñ bi bu la ñaanalee ñaan gi tey jii yàlla jubalu ko nga dee nañu daf ma doon dóor loolu dama sama cent cinquante <laughs> am déet. dañu fàtte ni ki la may tey bu ëllëgee bu ko neexee mu xañ. Mhm. loolu mooy wax ni yàlla na yàlla muy dégg. léeg-léeg nag waxtaane kaw yi dafa baax. pour nit ñi nag dellu ci seen borom. kon nag ñu ngi sant yàlla. di tëj di wax ni bàyyi laay naxu. bu subaa dinaa ko fi. bàyyi laay naxu. bàyyi na taxul bàyyi laay taxul man la fu mu tudd. géej gaal la fa mu nekkoon. ni moo nga janook moom. wooteem bii wax naa ko ne woon na buum gi sew na waaye du dox. lu àdduna wax wax wax tey la suñu pas-pas gën a yokk. du dëkk lu wax wax wax wax lu ñu fi roy ci lu baax ci bàyyi lay leen ko jàng. ba maamu gars yi di digle cigarette di ko tere kenn terewul cigarette. am de. bamay wax waxam ji ni ku ñewul ku gëm di nga ñëw pour sàkku xéewal bo waxam Sénégal sañutul koo weddi bay la yo ko def te mi ngi fi ba nëgëm fii mooy sàkkukaayu xéewal bi am déet lislaam bi rafet lépp rafet kon li maamu naxul am na loo xamante ni gis nga laayeen bu dute ko lay tey la xaw sax dof laa lay tudde wala ku ñàkk fayda wala ku rëy suba laa koy firi nag mais pour wax leen ni lu ngeen di dute ci yonent bàyyi ndax du la doy seena ndax du doy ñun laa yeen mag mu toll ni bàyyi wéy si nga xamante ni moo féete bàyyi laay ci mag mag mu toll ni suñu bay wéy si féete bàyyi laay ci mag ndax ñun du ñu doy mag mu toll ni moom ak garaat yi xëy yàlla defal ak nitu yàlla ci mu doon ak ni mu kawe woon di wàllu yi bu mag ndax du ñu doy ruuwam dem àllaaxira mu dekki li bàyyi laay moom la démb moom la tey si ñun loolu ñu doy bu ñu gi àllaaxira ñëw di ko dëggal si ñun loolu doyul am de mais am na du ñu doy bu ñu gi ba àllaaxira dekki bàyyi laay ni ko man la mu ne xaaral ma yeesal jàpp rek wax la yow la kan daal jël taawam wax wax wax wax wax wax la muy wax beneen yoon bi naa ko firi xam nga dafa am histoire yu set yu ci nekk ci ci génn Baye Baye Sida àdduna te il faut ñu waxtaanaat ci Baye Laye lu tax mu ni Baye Baye Sida dugal rek Baye Baye Sida première woote lu tax Baye Laye bi mu ko nee Baye Sida muy teg jogul pourquoi deuxième fois Baye Sida muy teg jogul lu tax mu xaar ko muy C'est une question. Mm -hmm. Ah, je vous ni teg. Mbaye Sylla mu ni teg. mu xaar ba mu ñetti yoon ci kilifa bu toll noonu woo ko mu mel ni ku kattan xamul ba ci ñetteel bi yoon muy doog a jokk. Mhm. ndax la doy li bàyyi lay werante yàlla mën na yónni man li ma ak yàlla yónniwu ma man li ma bàyyi ba si la ñu teg mu ne ko boobu werante àdduna gii la yem waaye yëgul ala perfect. Oh, man de bu àdduna ñëwee ma wan leen loo xamante ne doy na ma ni bàyyi lay la yàlla yónni parce que àdduna it xam nañ ni ba démb ba rek maa ngi koy wan maam alsaan sama rakk jële am déet yonent rek mooy teg tànkam ci suuf bu teggee kenn dootul gis jeexitu tànk ba yonent rek mooy teg tànkam ci doj te bu teggee tànkam tànk a des ci doj bi wallahi azim wallahi azim wallahi azim démb laa ki sama rakk jële doj ba bàyyi laay daan jàppe ca ngor teg ca tànkam tànkam ba des te ba dëgg ni war naa ko ma alsaan démb sama kër loolu day àdduna waaye bu dee wàll yi bu ne man na ko nag nanu wàll yi dimbali ci ñaar yi mooy àndal géej gi ndax mi ngi toj rek wala boog ñu teg seen tànk ci li def si nag lu leen nag raf leen ko mu def boo demee ngor loo soxla ci xeer di nga ñu tegal leen ko ku ne nag teg di wàtte kon nag ndeysaan maa ngi tëj yox rek benn baat bëgg ngeen wax ak man ñaan la la la la ndax mooy juróom nga ca béy ba yàlla yi mu jóg. li mu nu desal nari lay lay la laa du ma saaf wi ndax mooy ki jum ya seppey ba yàlla yi mu jóg sunu kàllaama laay laay la laa lay lay la daa du ma sàppi ndax mooy ci ñun yee ca pay ba yàlla yi mu jub sunu kàlla ma laay laay laay bilay ndax mooy ci ñun yee ca pay ba yàlla yi mu jub sunu kàlla ma laay diggante kaw sara diiwaan yi leen arastu fi naan ndox yàllaan ka may ci sa barke ci baaxu bàyyi ñangulaay dégguma de ah dëggal كوثرتي والإليك أرست فينا رؤيا كميت سبانك سباه باي جنغلا ودر خم لك لك جتنا جتنا لما مولاي لما مولاي وجهت خايف بداه شمس وأنت مهدي لاي بانت ساليك جانغون دنو خمرنا بلا ويلي kontaan mu nag ndax dégg ma jigéen ñeg way leen jabeel way leen jabeel ci maamu laay li ma lay way du jeex du xaaj du ma day ah lay lay la la illallahu way leen maa la ko wax maa la ko wax danaa nag mu jeex nag dëkk ñëpp ko illallahu way leen way naa maa

baax waa diaspora bi di leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla barkeel leen te yàlla dolli seen i xeewal ak seen i sutura te yàlla defal leen ndam fa ñu nekk ci réew ya barke bàyyi laay ndax dañuy bàyyi seen yitte yëpp toog di ñu déglu waaw wallaay ndeysaan di leen ñaanal rek diaspora bi yëpp di ay xarit di ay wëllëre te fonk ma bëgg ma di ñaanal Binta Ndiir te yàgg ak man lool sama daayira dëkkoon fii ci njàpp ma nga ca Génoa fekk naa ko fa daawaati jëf yal na ko yàlla barkeel Matar prési ak far fari soxnaam su baax soosu nga xamante ni wax dëgg yàlla jamono buñ fa nekkee mu teral yàlla barkeel leen waaye di ñaanal bu baax El Hadj Fall El Hadj Fall mu Serif Seynou moom nekk ca Los Angeles yàlla barkeel ko te su suturaam dolli xéewal ñaanal képp koo xamante ni yaa ngi muy bëgge suñu xel lañ ci yow fàttewunu Seyna ba yàlla dolli xéewalam ak libaas ñang bu bàyyi taala ñang mii ci cekkeet yàlla dolli xéewalam ak suturam barke bàyyi lay kon lay lay la laa du ma sàppi benn yoon lay lay la laa du ma sàppi ndax mooy tuddu ya sa bay ba yàl bay muñu sunu kàlla ma lay lay la laa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa imam ñaanal sunu sëriñ sëñ su baax si rek nee nañu ñaanal imam Jinloo Ablaay jërëjëf te naa imaamu jërëjëf wallaay seen maam moo gën mënoon ngeen doon def ay taal mënoon doon seen ay taalibe ba pare te du leen nu teg teg waaye du leen nu nawloo waaye li gën a neex mooy ñoom dañu def dañuy sunu sëriñ ba pare def nu ay nawle am orma ci ñun te ñun ñoo leen ko waroon a delloo yéen a baax yéen a gore ñun la war ñun la la war ñun la war sàkku seen ndimbal seen ngërëm di leen dawal di leen bayali tool di leen jëndali oto di leen tabaxali kër di yor seen i dépense añ ak ndox ak courant ñun ñii la wax bu ko def boo geesoo ci àdduna gis ñu ko defal seen sëriñ waaye am ngeen ma ci ñu lool naw loolu te bu leen neexoontu leen ca fekk yéen a baax yéen a gore lu woo leen mag ñi de seen toogaay bii de mag ñi duñ la woon mu bett leen ngeen koy defaraat lépp rek yàlla na yàlla dolli sa jàmm yàlla na yàlla dolli Seydina Limaamu sa jàmm ñaanal so Serigne Ndiaga yàlla dooli dolli xéewalam waaye ñaanal imaam Dieng loo ndax fa muy jógee sori na te jàmbaar la du dëkk ñaanal yi bam imaam démb jéen naanal jàkk jëpp yàlla na yàlla barkeel leen ci guddal seen fan barke bàyyi lay bu baax mi koor dafa xat te it ay coono yu métti la ñuy jànkoontoon pour bokk ak yéen lii kon ñu ngi ñaan yàlla nu yàlla may ñu mën leen a gunge ngeen gunge ñu gungeen te ba weer wi jeex ba yàlla may nu ñu fekk ci ay déwéni déwéni déwéni déwén parce que bàyyi laay koor sax nga nee na ñu jàng ñetti fatiya ñetti lexlaas ñetti salaatu fatiya yéene ci imam jiloob naay ba waaye ñu yéene waale ci ahlul bayti alaa rawatina lu sang yu baax yi yàlla defal seen lépp lu baax waaye Issa Ndiaye daan na ko ñaan loolu daan wax yàlla na yàlla defar seen lépp lu baax yàlla na yàlla defal seen lépp lu baax yàlla na yàlla defar seen lépp lu baax yàlla yàlla defar seen lépp lu baax parce que ñetti parti ñetti wax laa امين امين امين يا امين امين امين امين يا امين امين امين يا امين امين يا رب Biliyorum. Amin. Amin. Biliyorum. Biliyorum. Biliyorum. Biliyorum. Amin. Biliyorum. Amin. Amin ya Rabbi. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. آمين آمين يا رب آمين بحرمتي